si ndiidi di rakk ci Malick Dione mu joxoon ñu kàddu li ñu dootale ko seen diggante ak sëñ Basirou Dione dafa am lu ñu bëgg lu ñu ko bëgg a jox ci bis bi te yayoo na ko dafa jot sëkk ñu jox ko ab raaya ci bis bi rawatina bisub ren bii di bisu Serigne Saliou bu ëllëgee yomal xiyaam Serigne Touba décoraat ko bis bi nag sant nañ ci bu baax jàpp nañ ne man mii di wax ak yéen ñu bari xam nañ ni mu demee woon waaye sëñ tubaa rek sëñ tubaa rek lañ gëm lañu yaakaar nañ ko santaat bu baax ñu xam lépp sëñ tubaa la ñoom ñii nag ñu baax lañ ku ci nekk da ngay jàng français ñii di jàng arab sëñ bas def ci ñoom loo xamante ni amaana seen waajur yi defu ko waaye fii la ko suñu borom jaarale ñu amuk cofeel bëgg koo décorer ci kanamu mbooloo mi te yeyoo na ko yàlla na ko jik ci barki sañ Tuubaa kon soxna yi dañuy yëkkati raaya bi rek yëkkati ko jox ko sëñ Basiiru dafa am laxasaay buñ ko jox am na la ci toog xam naa buñ ko génn rek ñëpp nañ ko gis sëñ Basiiru muñal rek mbégti sëriñ Tuubaa moom lépp la la déjà dëggal rek abadi yo jama yàgg be waa lii nag surprise la xam naa maa ngi jégg lu baax man mii maa ko xam sa ci góor ñi gis naa ko sëñ tubaa ñu wax ma ko ma fas yéene ko ànd ak ñoom waxoon naa leen di joxe ko nag waaye dañoo bañ ñu ne ma yaa koy jox sëñ Basiiru loolu nag sant naa ci bu baax moom sama jëwriñ laa ko teg sama waajur laa ko teg sama kilifa laa ko teg yàlla su borom guddal sa fan ci barke sañ Touba li ñu jàppee gëm nañ dañuy dañuy dem kon ab kaamil la ñu yëkkati woon jox ko kaamil baa ngi nii dañ koy dajji nga jàng ci ñu wéye liggéey bi nga ñaanal ñu bisimilah barki sëñ Touba addiyee sëñ Touba soxna yi ñoo la ko jox dangaa def ci ñoom loo xamante ni yéeme na yàlla na la jikk yéen tamit saf ngeen seen bopp na ngeen góor góorgóorlu ku ci amagul borom kër yàlla ngaa mur saadiya te di ngeen ko am ci ba taw ba tan barki sëñ tubaa kon bisimilah ubbil nga barkeelu ci rek incha allah kon ñu ngi jéggalu ci tax toogaay bi yàgg na waaye ñu ngi koy jéggalu baax lépp liggéeyam la liggéey sëñ Basiiru la yàlla suñu borom guddal safan ci barki sëñ Tuubaa jërëjëf waaw ñu ngi bu baax doo ko ñëw nag waaye damay féetale ko rek rek ak Serigne Sary barki démb dama fekk Dakar ñu am nuuru daara ñu jox. dëgg la tey ku ne sëñ Sary jox ko kaamil kon da nga koo na fi yàgg da nga ko kat kon yàlla ñu àgg rek.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 jërë ngeen jëf ñu ànd ak dal rek jërë ngeen jëf ñu ànd ak dal rek. ñu ànd ak dal. ñu ànd ak dal. ndeysaan. ànd leen ak dal. ndeysaan. ndeysaan. ñu ànd ak dal rek jërë ngeen jëf. dal. ndeysaan. ànd leen ak dal. ndeysaan. ñaan rek dal rek jërë ngeen jëf la ko ñëpp ñaanal suñu soxna soxna Nogoy Thiam la ko ñëpp ñaan bëgg fàllu ku tan fanam ci barki Sëñ Tuubaa soxna Nogoy Thiam bëgg fàllu mën naa yegg bu ko defee moom itam mu am fukki minute yoo xam ne day soññee ci diggante soxna yi rek bu ko defee itam ñu xam ne bu ko defee ñu xam ne itam na la ko fanweeri nit laa bëgg ñu jaayante si nit ñi fanweeri fanweeri nit ku nekk ab téeméer fanweeri nit ku nekk ab téeméer yokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu si ci la ci nuyoo sunu buntu Serigne Saliou bismillahi wa huwa arrahmanu wa huwa arrahimu qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada على الذي به لنا هدى بدا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبابن مسعود وجاه ابن سلام خني البلاء وضر عين وكلام وزكي لبي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Tuuba Pambal ñu ngi leen di ziyaara di leen balu àq te di leen baal àq di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal di jiital ci ziyaar bi imaamu dëkk bi ak chef de quartier ak mboolem da jëwriñu daayira yépp ndax alquran nee na watul buyuta min abwaabiha di ziyaare mboolem dawaayir yi nga xam ni ñu ngi fii ci suufu tànt bi waaye rawatina waa kuréel xidmatul xadim ñu ngi leen di ziyaara bu baax di ci jiital suñu jëwriñ jëwriñ bay fay mu yóbbaale mboolem góor yàlla yi ak soxna Ruba Jonn mu yóbbaale mboolem soxna yi mu mel ni kàddu yi ñuy bëgg a yëkkati nag dinañ lottu lool ci yëkkati ko ndax néew nañ ci carton lool waaye comme dañ ko sàkku ci ñun rekk mu nekkoon benn thème bu gàtt bu ñu defoon ci góor yàlla naka lay waajalee tànn soxna waaye soxna itam naka lay waajalee tànn borom kër waaye amaa ñuy waajal loolu yépp tamit day jaadu ñu xam lan mooy sëy ba pare ndax sëy balaa nga ciy dugg war nga xam mooy lan ba pare mu ñu bëri nag wax ni aziwaaju aqdun yarbitu bayna zakarin wa unsa bi ziixatin muayyanatin wa bi shurutin shar'iyatin muhaddada ñu ni sëy daal mooy tegin bu naturel bi nga xam ni moom lañu ñu lislaam tegal muy pas-pas boo xam ni dafa dox ci diggante góor ak jigéen mu nekk nag ci ay charte yu ñu xam ndax daf ñuy neex rek ñu dem jël jigéen faj ci suñu soxla dem wala ndax jigéen gi tam da koy neex rekk mu dem gis góor faj ci soxlaam dem déedéet dafa am nu nu lislaam tëralee noo xam ni ci la ñuy tànnee soxna waaye ci la ñuy tànnee tamit borom kër mu mel ni dafa am ku waxaat ni الزواج إناس وتعاون في ظلال المحبة والرحمة mu ni sëy day maanaam wettili konte la ak dimbalante ci keluk cofeel ak yërmande ñu gis ni diggante bi nga xamante ni diirub bi nga xamante ni suñu boroom day wàcce ay xalifa ci kaw suuf yonent bu ñëw ba dox sa mission ba dem mu remplacer la ak beneen yonent ba suñu jamonoy tey jii suñu nay sëy dañul di lu am te ba tey jii dañ koy amal mu mel ni nag daf ñuy wax tamit naka la ñuy tànnee borom kër walla naka la ñuy tànnee soxna nga gis ni ki nga xamante ni dafa yor société sax balaa muy taxawal société boobu day jël ay emploi yoo xam ni compétence lan ngir mu mën a doxal société boobu ndax góor ak jigéen mooy première nit ñi nga xam ni ñoom ñooy doxal société yàlla ci kaw suuf kon day jaadu ñooñu noonu ñu tànn leen bu baax ci anam yi nga xam ni noonu lañu lislaam tëralee ngir ñu tànn ko ndax jigéen laataa lislaam di ñëw dafa am fu mu nekkoon bu dee ci jaahiliya yi ñu gis ni bu dee ci indo yi dañ ko daan rungu di jaay bu dee ci naar yi ñoom dañ ko daan donnu comme ni ñuy doonnee alal waaye bi lislaam ñëwee nag lañu tëral dandikat jigéen kenn du ko jëlati di faj sa aajo lu dul da nga koo jaarale ci tëralin bi nga xam ne moom la ñu lislaam tëral waaye ci naka lañ koy tànnee tamit muy ci jikko ji rafet ak diine ndax alquran dafa wax ni wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi xabu xabusa laa yaxruju illa nakida wa kazalika nusarrifu al ayat li xawmi yashkuruun lahum maxfiratun wa risqun karim suñu borom bi subhanahu wa taala day wax ci alquran suuf si nga xam ni walla réew mi nga xam ni dafa naat dafa baax boo fa jiwee gàncax bu naat meññet mu naat rek nga cee am waaye suuf si nga xam ne dafa bon boo fa jiyee ak lu mu taw taw taw doo am lu dul gàncaxu sën te yonent bi sallallahu alayhi wa daanañu wax naan iyaakum wa xadraa u dimni maa ngi leen di moytandiku loo gàncaxu sën ñu ni ko lan mooy gàncaxu sën yoo yonent bi mu ni almaratu almaratul xasna suu sin mu ni mooy jigéen ji nga xam ni dafa taaru lool waaye jikko ja baaxul nee na kooku mooy gàncaxu sën kon ñu moytu ko bu baax nga gis ni tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doon gindi ngir ñuy tànn soxna su baax comme ni ko suñu sang bu baax ba doon waxee muy Serigne Touba Xaadim Rasul doon na ñaan borom bi subhanahu wa taala naan koon wa zawjatan salihatan tu'inu ala tuqa wal birri ya naa ko yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga may ma soxna su baax soo xam ni dana ma dimbali ci may jaamu yàlla ak di ko sellal nga xam ni ci ñaan soxna su baax soosu boo ko amee ci ngay mën a amee lam doon wax naan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal mustafa tajtahidu nee na yow yàlla boo ma mayee soxna su baax ju sell yoo xam ni dana ma dimbali ci sama diine bu ko defee day danaa ci mën a am njaboot goo xam ni dana ma yeesal sunna seydina muhammad sallallahu alayhi wa te ci njaboot googu nga xam ni ci yërmaande ji mu amoon ci jaam yi moom Serigne Touba ci la ko suñu borom rafaatale Cheikh Saliou Mbacké mi nga xam ni moo waral bis bii tey waaye ci dëggoon nga itam ci la ko rafaatale ku ñuy wax Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye ci bëgg gi mu bëggoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko rafaatale Serigne Modou Moustapha waaye ci jubboo gi nga xam ni moom la jubboon ak suñu borom ci la ko mayee sama yaakaar tey ak muy Cheikh Mouhamadul Fadel Mbacké kon ci soxna su baax ci ngay mën a am njaboot googu yépp ñu gis ni yonent bi sallallahu alayhi wa salaam ba tey daf ñu tegaloon critères yi nga xam ni ci la góor di tànnee soxna muy ci ñeenti critères yonent bi ni tunkaxul maratu li arbain li maaliha wali jamaaliha wali xasabiha wali diiniha waaye lan la ci teg mu ni fasfar bi saati diin tari ba dee daak yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni yow góor yàlla bi boo demee bay tànn soxna na nga tànn borom taar na nga tànn borom alal na nga tànn borom askan askan nag bu ko waxee foofu dañ fiy taxaw tuuti waxewu ko comme tey nii ñu ko jàppoowee naan diw du sama nawle diw tëgg la wala diw géer la wala diw géwal la ndax boo demee ci alxuraan suñu borom mi ngi wax naan yaa ayuha nnaas inaa xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum suñu borom mi ngi wax naan e yéen nit ñi maa leen bind day yéen jigéen ngeen nekk ay góor ak jigéen ma def leen ngeen di ay xeet waaye li ma ci jublu daal mooy ngeen raga xam ni ki gën ci yéen daal mooy ki gën a ragal yàlla te tey nag bari na ci ñoo xamante ni bu nit ñëwee di bëgg seen doom du duñu xool kat ndax kii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni isa ataakum man tardaw na diinahu wa xuluquhu fa zawijuhu illa tafaluhu takun fasadun wa fitnatun kabiir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni bu fekkentee ni góor dafa ñëw ngir bëgg seen doom na ngeen xool jikkoom ak diineem bu leen doyee ngeen may ko soxna bu dul loolu nag yéen a ngi dund ci fitna ak yàqute gu rëy tey nag li ñuy xool ci góor yàlla yi ci ñu ci yëpp mooy ndax borom daraja la ndax borom mi makkaan yu bari la ndax borom mi daraaja la ndax borom mi sayaara la te loolu amul solo walla kii kat géwal la wala géer la tey bari la ñoo xam ne nii toll nañ ci am soxna li leen ko xañ loolu ci la ñuy bëggante ak nit te yàlla rekk tax te la yonent bi sallallahu alayhi wa salaam waxoon lépp a ngi ci ñoom waaye ñu xañ leen ko ngir lan kii kat géwal la wala kii kat tëgg la te genn géer rek moo am muy sangu-sang yi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam. moo tax ma defoon ci benn taalif di wax naan. tey ma door di laabire jigéeni tey di fàttali bismillahi man lagan qur'anahu kama jaal mawaddatan bayna rajul wa maratin min al asal moom moo buur bi ñëpp xam moom moo moom kon nañ ko gëm te kenn du gis fi ñun kemam te loo fi gis moo ko amal moo bind góor bind jigéen moo bindu loo fi man di seen moo jël cofeel def ci jigéen def ko ci góor mu koy doxal yow mii di góor déglu ma tey ma wax la jikkoy jigéen ju way di jar goroog di gonti di xëy ak di jarub di may alal jigéen ju baax day doon ku teey am kersa lool te bañ a géey woyof sawar ci ab liggéey tabe balum yor ni jëlal maanu te jub yow ku ko def boo leeg lewet mooy ki ma saf yeewu te yiw balu mu def nga yéem ko kii moo mat a jël doylu bu wer sàmm bu wer te neex deret ba ñaadu mer silviise lool di muuri cër xel ma rafet mu lay xelal am jàmm lool te mën a muñ xolam ba yaate du la bañ ku mel ni kii kenn du ko bañ boo ko yoree dalay matal déglul ma tey ma wax fi man naa toog yaru te bañ lu bon du fen du jëw te manu gan jigéen ju mel ni ya mat a jël ku baat ba neex muy wax fi suuf te buy nuyoo di toog ci suuf kii ku ko am kat du la soof safaanu kii dalay xatal déglul ma wax la yow safaan te mooy jigéen ju mën a ñaan ëppal rambax boole kañaan matul jabal dalay lëjal jigéen ju dul julli du woor te mënta defar kafe gu foor baat ba di riir mu mel ni góor mu def ba dee matul a jël jigéen ju dul jigéen kuy dox itam di wàqi suuf te telum togg man ni ko fuuf saa bu tëddee ni wàpp boof boo ko takkee am ngaw gangal ku réew reew réew xolam ba bon làmmeñ wa ñaaw mu mën a fen sàggante rëy kii rek a bon fu la wut see yow mi dawal jigéen ju ñaaw te bët ya jigéen ju ñaaw te mën a jëw jikko ja ñaaw te bët ya sew mu mën a tooñ te gaaw a bel loo bëgg-bëgg yi du ko jël jigéen ju ko gaaw a mer am doole lool te gaaw a dóor te nekk njool boo wóoluwul sa bopp lool ba bàyyil mu dem kon bu ko jël jigéen ju dul fóot du bale te am xit fitum xëy darale koñ bi ñëpp xuloo kile boo ko gisee nang ko xajal jigéen ju dul toog du toog te lu wax ñépp ni tuug nga di ko gis foo mat la foog ci ab safaan bum la xamal jigéen bu dee kuy gaaw a wax te mënta wax wax ju neex bari jikko yi ñuul ak a weex kun ko sallax am ngaw gangal jigéen ju dul tontu lu neex jigéen gu dul jigéen ju dul foot yére yu weex te mënta togg togg gu neex te mënta tontu tontu lu neex foo ko fi gisit bul ko jël yonent bi nee nañu woon jigéen ju taaru lool te bon gàncax la rek bu sax ci sën naat na de waaye meññalul yow mii di jigéen déglu ma ma wax la góor gu jarawut mu di jullit bu amu fit mën a layoo mat naa sëyal góor gu la yor te lay muñal xel ma rafet mu lay xelal bëgg la lool man laa muñal bu la mayee gura yeyal bul xool alal ba jaay sa ngor bul gaaw a gëmit daña war seetal ku baax te bañ a war te bul teg sa bët ci alal saabu alal taxee nga sëy des na la xeeb nag yaa ko tey lii nag saful jigéenu tey ndax li nu gëm moo di alal saa boo bëggee doom ju baax nigal ba gis askan bu baax nga jël fa sëy fa sëy bu baax doom dina ñëw yàllaay dogal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ridan wa rahmatan min allahi batiq xayrun min ad dunia wa ma fihi jamia ñu ngi bu baax di jéggalu ci kàddu yi ndax baat bi tey dafa xaw a doy waar lool tey itam li ñu waajaloon sax waxuñu ko ndax xataayu waxtu wi waaye ñu ngi jéggalu ñëpp di jéggalu borom xam-xam yi nga xam ne ñoo toog ci tànt bi ndax li ñuy wax ñu ñu ko gën a xam fuuf ñoo nekk ci tànt bi lu ci jub ñu xam ni ci suñu borom la subhanahu wa taala ak mbaaxu sëriñ fàllu waaye lépp lu fi dëngit ñu xam ni ci man ñii doon wax la ci sama ñàkk xam-xam ak sama ñàkk fasaaxa di ñaan lépp loo xam ne ñu ngi ko fi wax rek wala ñu ko fiy jëfee yàlla nañ ci dëppoog tawféexi Serigne Touba te yàlla musal ñu ci ngistal yàlla buñ ci gis suñu bopp te lépp luñ man ren yàlla nañ ko man bu déwénee ci barkab Serigne Fallou Mbacke Serigne Bassirou Dione ñu ngi lay ziara bu baax di la ndokkeel ci cadeau bi nga xam ni moom lañ la jox muy cadeau boo xam ni dafa gën li ci àdduna ak àllaaxira ndax jox nañ la cadeau bu dul jeex ba faaw muy alquranul karim bi nga xam ni Serigne Touba Xaadim Rasul moom la fonkoon lool ba naan kitaabun karimun min karimin mukarramin ba bayit ba egg ba naan yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa xablu kunta habibi ñu ngi ciy tub bu baax di jéggal jëriñ mbay fay ñu ngi lay ziara bu baax ñu ngi tub bu baax ndeysaan jërëjëf soxna May Thiam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci rafetlu kàddu yi am na solo jërëjëf dañuy am mbégte bu baax a baax ci kàddu yi kon mu mel ni mu mel ni dañuy woy rek seen pour di yegsi na moom ñi mu àndal kon bu ko defee ñoom mën nañoo yegsi